arbitre bi soufflé na. arbitre bi soufflé na soufflé na. ñoo ngay diggante Sokh Jackson. ndeysaan Sokh Jackson. le 25 décembre. ñoom ñaar ku ci naagu daanu. feet la feetu Noël la. feetu Noël bi tey. ndeysaan Sokh la ak Jackson. xaw ma kan mooy feet ak kudul feete. ndeysaan Fallou. Fall Fallou ndeysaan Sokh moo ñu wan ginnaaw Jackson lañ jàkkaarloo. moo ñu wan ginnaaw jërëjëf Ousseyn. ndeysaan Sokku Jackson. Sokku Jackson. oho. Leewtoo ba dig na Fallou. ndeysaan seeni waa kër tooguñu taxawuñu. ndeysaan Sokku moo ngee ngemboo ngembu lu am lu vert li. Jackson ngemboo ngembu lu am lu ruus li. ndeysaan di ñaari xale kii Pikine kii Géeja waaye dër bi yàgg na faa am. saan hey Jackson door na léegi dugg ci garde bi. dugg na ci garde bi lépp door. waaye bal na ko ca kaw Sokku jàpp na Sokku jàpp na. luy xew Sokku ngay resté ci bëre ba. Sokku moo nga. Jackson eh, daan na ko. daan na ko. laa ilaaha illallaah Sokh daan na ko jëli bi rëy na. Fallou am na lu xew de. jëli bi rëy na. Fallou lu mën a am am na lu xew jëli bi rëy na. am na lu xew de. jëli bi rëy na. am na lu xew de. jëli bi rëy na. Fallou jaxasoo na de. jëli bi rëy na. Fallou. fu ñu jëm faar. Fallou am na lu xew. fu ñu jëm. ndax Jackson yegg na suuf. fu ñu jëm. ndax Sokh yegg. dogra iti general ageno